bi ñu jotee ndigal pour organiser julli gi ak vision 129 ci la ñu jël mesures yooyu yëpp xale yi ñetti fan a ngi nii guddi ak bëccëg ñu ngi liggéey ci lool su ngeen gisee organisation bi ni mu mel ak drapeau yi gis ngeen fu ñu ko samp fu nekk ñu samp fa drapeau dañu bëggoon kenn ku nekk soo ñëwee xam nga fu nga war a taxaw kon li ñu waroon a respecté yëpp respecté nañ ko mesures sanitaire yëpp respecté nañ ko ndax gis ngeen ku ñëw buy ñëw masque lay takk kuy ñëw. amoon na sax ay thermoflash yi nga xam ne soo ñëwee ñu teg la ko ba nga xamante ni que amuloo benn feebar loolu lépp dafa bokkoon ci organisation ci ci ci ci package bi nga xamante ni moom la ñu tegoon pour que julli gi mën a jaar fi mu war a jaar bu egsi ngeen gisee yéen sax xaj na amu leen woon information bi que ni dinañu julli c'est que dañu bañoon mu am risque parce que suñu waxoon ni dañuy julli kon fii kenn du fi xaj kon mesure yi ñu bëggoon pour que teg ko kon duñ ko war a mën a teg moo tax. ñu bàyyi woon doon defuñu benn communiqué mais gis ngeen defuñu communiqué waaye gis ngeen jàmmalaay moom fees na yàlla dimbali nañ nag ba continuer nañu ñoo ñëpp ku ci nekk fa nga war a taxaw taxaw nga fa la nga war a def def nga ko kon loolu sant yàlla la nun du nekk risque ci noonu parce que xam na li ñuy def damay wax ni que ni nun dañu am xale yoo xamante ni que ni ci góor ak jigéen mag ak ndaw luñ ci organisation ci diine ji ñoo ko yor muy vision 129 kon ñooñu dañu leen di dañu leen di gërëm spécialement ndax lii lépp su mën a yem a tax moo woon benn problème parce que xamoon nañ que ni risque zéro nag amul fen waaye nag def nañ li nga xamante ni que def nañ war nañ ko def ba nga xamante ni que ni tey jii am naa yaakaar ni que ni laayeen yëpp seen xol sedd na loolu it dafay jox xalaat ñeneen ñi xam xamante ni xaju ju ñu woon parce que mën na ne suñu demee bu ubbi ay école suñu demee bu ubbi ay marché kon war nañoo mën a ubbi ay jàkk war nañoo mën ay ay ay ay ay bëri euh, kon nag na ñëpp jël seen disposition ku bëgg a julli mën nga dem julli waaye nag lañ la wax ci ci mesure nan ko jël nga xam te ne que ñëpp yàlla dinañ mën a sàmm ba ñu gën ci mbas mi incha allah. yàlla mooy jiwale ay nit ñu ànd def lenn yàlla it mooy taxale ay nit ñuy def leneen waaye lépp rek dafa bokk ci diine ndax kenn ku ci nekk fa nga teg la nga teg rek ci lislaam la ndax li nga xam te ne dañoo war ñaar fukki fan ak juróom juróom juróom-ñett ñaar fukki fan juróom-ñeent ba ñu wari. ki nga xamante ne que am na sikki sàkk moom it ci li ne que ne est-ce que weer yi feeñu na ko kon def ci la ak sotti ci rek lépp rek l'islam la nañu ko rek ci cadre waaye nag su waxtaan a am ci kaw kilifa diine yi njaboot gi daje waxtaan bu teg gëm naa ni kilifa diine yi tey kenn ku ci nekk soo yebaloon ku nga gën a bu ñu toogee loolu mën a am yaakaar ne dinañu gën a xam te ne njaboot yëpp nañ ci tënk kon loolu la am solo commission bi euh, macha allah ñu ngi def seen liggéey ba tey jii waaye nag jamono dafay dox jamono nag buy dox foog nga ànd ak moom di dox kon nag gis nañu ne que mag dugg na war nañu xalaat naka la ñuy def pour que xalifa yi nga xam te ne que ne ñoo nekk ci réew mi waxtaan ak njaboot gi kenn ku ci nekk tànn ki nga ka la gën a doy ñu lëlu waxtaan génn la nga xam te ne que suñu génnee certainement taalibe yëpp dinañ ci mën a jëkk. maanaam soppi commission yeesal ko daal. yeesalaat ko doole ñu dolli ko. ñi nga xam te ne borom xam-xam yi ak xale yëpp ñi nga xam ne am nañu xam-xam am nañu lu ñu mën a apporter ñu boole leen ci nga xam te ne kat yëf dina ko mën a gën a mën a yéwén